ngi rafetlu yéen ñëpp seen teewaay man maa ngi tudd Pape Abdoulaye Touré bokk ci coalition article 118 119 euh, bu COCC FSJP faculté des sciences juridiques et politiques donc tey lu waraloon ndaje bi lenn kese la mooy que ni euh, seetlu nañu fan yëla ca ginnaaw amoon na ay yëngu-yëngu ci biir université ay yëngu-yëngu yoo xamante ne à la suite euh, ci proclamation résultat élection amicale yi la woon parce que daf ci daf ciy baax ñu delluwaat un peu ginnaaw pour mën a expliquer li nga xamante ni moo fi xewoon exactement li fi xewoon lenn la mooy que ñun waa coalition article 118 119 COCC dañoo dem élection le lundi 7 juin bii ñu génn bu ñu demee élection voté huit heures ba 18 heures presque 10 heures de temps ñu toog di ko voté ci sibeer yeeg ci bureau de vote yi nga xamante ni lijjanti nañ ko loué nañ ko pour di mën a anticiper le vote des étudiants. bu ñu voté ba 18 heures parce que d'habitude c'est comme ça et ça se passe toujours comme ça ci faculté yëpp soo voté ba 18 heures parce que campusen ni ñuy voté wee campusen ministre de ministère de l'enseignement supérieur moo koy gérer bi ñu voté wee ba 18 heures campusen dafa bloqué li nga xamante ne mooy euh, ministère bi dafa bloqué plateforme campusen 18 heures 6 ñu amee résultat yi et à notre grande surprise résultat yi joxe que ni ñun waa coalition COCC ñoo remporté li nga xamante ne mooy élection amicale faculté des sciences juridiques et politiques avec six quatre voix malheureusement suñu adversaires yi ñoom ñu am zéro voix mu jaaxal ñëpp mais comme tey balaa ñuy dem ci ay élection dañoo toogoon ñun ñëpp ci néeg toog le doyen de notre faculté ñu tënk ne képp koo xamante ne liste nga wala coalition de liste bu dem ci élection yi di tenter pour frauder li nga xamante ni nii tey mooy résultat yi pour mën koo salfaañe pour mën a gañe suñ la jàppee dinañ réduire sa compteur à zéro moo tax ñun bu ñu gisee seen i zéro pour cent appréciation boobu lañu la ñu ci am maanaam su ah, suñuy adversaire xëy na dañoo tenter woon di frauder ñu jàppale ñu réduire leen à zéro mais bu ñu ñibbisee ci campus bi en notre grande surprise également ñu gis ne am na ay actes yoo xamante ne yu ñuy ñaawlu la te mënuñu ko rafetlu benn yoon ñu fi am muy lan muy ay actes de saccage ay actes de vandalisme dugg ci restaurant yi saccagé ko empêcher tous les étudiants ñu jël seen i dîner saccagé li nga xamante ne bien public la appartenant à tous les étudiants mais bu loolu di am ñun coalition COCC ñun ñëpp xam nañ ni suñu couleur couleur bleue la te ci biir vidéo yi ngeen di gis yéen ngeen jot ko relaté relaté ko ci seen euh, organe de presse yi xam ngeen ni ñu def jëf jooju nekkul couleur bleue parce que munoo gañe ba pare di wër di saccagé bu loolu weesoo ñun bokkoon nañ ci ñu doon exiger à ce que ay sanctions am parce que dañoo jàpp ni violence ak acte de vandalisme su continuer di wéy ba léegi ci campus universitaire bi c'est parce que effectivement y'a lu ñuy wax impunité ci ci violence yooyu moo taxoon ñu bëggoon impunité yooyu dañ par tous les voies nag muy communiqué muy fu fu ñu mënti jaar jaar nañ fa pour wax na sanction am waaye bu sanction amee dafa am lu ci bees mu jaaxal ñu trop ñu jàpp ni ñun acharnement la ci suñu kaw parce que ku tojul yàqul dem bay sàkku pour ñu teg ay daan ñi nga xamante ne mooy ñooy les vrais coupables de ces euh, de ces actes de vandalisme et de violence tey résultat yi génn parce que dem nañu audition dem nañ njëkkoon nañu dem instruction fii ci suñu faculté jóge instruction dem commission de discipline vendredi bii passé bu ñu demee commission de discipline lenn lañ ñu doon toppee ñun waa coalition article 118 119 bu COCC lan lañ ñu doon toppee muy un message de protestation boo xamante ni ni ñun ginnaaw ci après élection yi ginnaaw résultat yi suñuy adversaire posé nañu peut-être ay actes de vandalisme ak de violence suñu euh, doyen faculté xëy la lendemain génnee communiqué ne annulé na élection yi te année l'année bu ñuy dajeek moom fii ne ko ah ñeekat dañuy utiliser ay actes frauduleux maanaam dañuy bloquer suñu puce lenn la ñu waxoon je ne suis pas compétent je ne suis qu'un superviseur et que man je me contente ci résultat yi may livré muy résultat final yi donc moo tax ñun ñu posé ko question ci suñu biir message de protestation ne ko depuis quand vous êtes compétent monsieur le doyen vu que l'année passée yaa ñu waxoon ni vous n'êtes pas compétent pour annuler ren ñu gis ni à moins de vingt quatre heures annulé nga ay élections donc depuis quand vous êtes compétent boobu nekk benn ñaareel bi mooy suñu camarades yi suñu adversaires yi utiliser wu ñu les procédés maanaam bind ñu recours te dañoo waroon bind recours au bout de soixante douze heures respecter procédure bi mais defuñu ko ba pare doyen au delà de cette de cette geste de de forme ak de fond mu teewul génne na communiqué. annuler élection yi ñun nag bu mu annuler élection yi métti nañu parce que nous sommes nous ne sommes que des mais métti ñu taxawul ñu wàcc ñun tamit ci mbedd mi parce qu'on a la masse mënoon nañu wàcc saccager violenter jaxase université mais duñu ko def parce que suñu moomeel la suñ ko yàqee suñu bopp la ñu yàqal moo taxoon on avait prévu d'écrire un message de protestation et de l'envoyer à notre autorité muy le doyen de la faculté laaj ko ndax est-ce que depuis quand ba pare ne ko ñun d'accord ñoo ak yow ci annulé bi nga annulé élection yi ci par parloo ci parax parax looloo tax ñu yóbbu ñu conseil de discipline ñun waa coalition article 118 119 COCC mais du violence du van acte de vandalisme du leneen lii moo tax ñu yóbbu ñu conseil de discipline et à grande surprise bu ñu demee conseil de discipline résultat yi démb la génn jàpp leen ni képp koo xamante ni coalition COCC nga bokk ñu la conseil de discipline gën gaa jëlee nga fa deux ans de suspension man mii di wax ak yéen. cinq ans cinq ans la ñu ma aj et pourtant man ak ñi ñu aj deux ans ñoo bokk les message messages yu ñu yónnee suñu doyen message boo xamante ne amul insulté message baa ngi nii peut-être après nañ leen ko partagé su ko defee yéen way laa ñu lire ko rek monsieur le doyen depuis le début on ne doutait pas de votre impartialité mais au regard de ce communiqué sachez que toute la communauté universitaire est déçue depuis quand vous êtes compétent pour se prononcer sur des résultats. L'année dernière, lorsqu'on vous a informé que ces gens utilisaient des procédés frauduleux tel que couper les puces pour gagner les élections, vous nous avez répondu que, je cite, ce qui, ce, ce qui vous importe, c'est le résultat final qu'on vous a communiqué et non les canaux utilisés pour gagner. Comprenez une chose, on a gagné les élections nous n'irons pas à d'autres élections. Si vous voulez qu'il y ait une année balance, maintenez votre position, monsieur le doyen. Vous pouvez constater que nous avons, vous voyez, notre doyen du début jusqu'à la fin. fii amul insulte fii amul propos yoo xamante ne injurieux la lii moo tax tey man Pape Abdoulaye ture ñoom ci lu ñu wax nee nañ lii moo tax ñun ñu sanctionné ñu mais xam nañu du loolu am na leneen lees waxul bu ci nekk dinañ dinañ ci ñëw. dinañ dinaa ci ñëw merci donc euh, de manière ramassée lii moo ñu fi taxaw na daje tey maanaam pour wax que ni ñun ñii ñëpp nous avons nous sommes nous avons été vraiment déçus de de ci résultat yi nga xamante ne conseil de discipline bi génne na ko sanctionné ñi nga xamante ne seen yoon nekkul ci acte de vandalisme ak de violence. am na ñu plus de cinq éléments yoo xamante ni. lu mu gàtt gàtt jël nañ cinq ans de suspension ñoom amatuñu droit inscrire ci biir fac ci biir établissement public yi si Sénégal yëpp ñoom maanaam seen avenir dañu ko daxañ fii ak cinq ans amatuñu droit jàngi loolu mooy la triste réalité waaye su luy amee mënuñu bett mënuñu bett parce que laataa élection yi di ñëw man à personnel informé nañ ma que ni du yàgg ba man coalition bi ma bokk ñu gagné élection. parce que yéen journalistes yi peut-être miin ngeen ma xam ngeen suñu combat xam ngeen ñun ci lan la ñuy yëngatu muy ci milieu activisme bi par par parloo boobu moo dugg tey biir université Pape Abdoulaye Touré su bokkee ak yeneen étudiants yónnee un message de vouvoiement à notre doyen ñu seppi Pape Abdoulaye Touré sanctionné ko 5 ans lees waxul bi ñun ñëpp xam nañ ko xam nañ sa qui se cache derrière c'est une décision purement et simplement politique parce que notre recteur est nommé par décret. donc kan moo ko fal kan mooy jël décret ci réew mi ku dul le président de la république donc lu ñu ko sant loolu lay def loolu appréciation boobu lañ ci mën a am parce que mënuñu concevoir nga gis ñi nga xamante ne ñoo saccagé toppoo leen dara ñu ci bëri ci ñoom nga acquitté leen jël képp koo xamante ni message nga yónnee doyen nga lu mu gën gaa gàtt nga yónnee ko deux deux ans de suspension ci ñoo xamante ne ay élèves première année lañ encore une fois ay étudiants wu première année. nga sanctionné leen aj leen pendant deux ans ñi nga xamante ne deuxième année la ñu nekk jëm kaw nga yóbbu leen cinq ans ñooñu seen euh, seen avenir bafoué nga ko ñi nga xamante ne pare woon nañ presque soutenance rek moo leen dese nga yóbbu leen encore une fois cinq ans parce que ndax lan ñoom ak Pape Abdoulaye Touré ñoo bokk coalition bu ñu nekk lii du dëgg du yoon c'est une injustice et dinañ ko xeex dans toutes les formes que ça soit clair et que ñi ngi informer l'opinion nationale et internationale que li am ci biir université bi te recteur mii nekk le responsable moom kese mooy responsable dañoo bëgg déstabiliser le système d'enseignement universitaire d'ailleurs déstabiliser nañ ko ba pare parce que ñi ngi dégg ay romandaat ci ay section unique section unique pour mu am il faut que étudiants yi ci boppam ñu nekk le porteurs ñu nekk le auteurs des grèves mais au lendemain de nos des élections ñun waa coalition COCC fleur yële ngeen di gis si ginnaaw ginnaaw bu suñu adversaire rombé fii saccagé ñun ñoo génnee suñu xaalis dem jënd ay fleur ñoo remplacé ko ñun ñoo mobiliser suñu troupe ñëw nettoyer lépp luñ fi saccagé woon donc ñun suñu tàccuwul suñu félicité wul ci manière bu ñuy syndiqué je pense que war waruñu ñoo sanctionné ñu bëri ci ñun ñu ngi naan est-ce que jarul woon ñu nekk ñun ñu ñu violent parce que soo fekkee da soo violent wee ñu am luñu la ragalee ba duñ la nangoo sanctionné donc mieux vaut nga violent moo gën ñu lay sanctionné mais ñun kenn mënuñoo divertir et que ñun dañuy rester dañuy rester euh, droit ci li nga xamante ne moom mooy suñu position initiale muy syndicalisme neneen lañ ko war a defee. plus de cinq éléments maanaam mooy lu ma la wax rek 250 personnes étudiants lañ convoqué 88 lañ ci sanctionné. te bu leen fàtte ni du fac droit kese fac droit ak fac lettre lañ boole mais jàppal ni biir fac droit ñaari coalition yi demoon élection muy coalition article 118 et 119 du COCC ak l'autre coalition suñu adversaire yi ñun ñoo leen ëpp ay sanctions foofu parce que ñoom am nañu au moins 21 yoo xamante ne ñëw nañu acquitté leen ci saasi mais ñun amul kenn koo xamante ne taxaw nga ci conseil de discipline bii nga génn ceeg euh, relax amul ku ci gën a tuuti peine jël na deux ans de suspension donc loolu ñu sommes plus de cinq yoo xamante ne ci coalition article 118 119 lañ bokk du COCC ñu sanctionné leen comme ça moo tax tamit ñu ngi artu di interpeller directement le chef de l'État ne ko université bi du ñu nangu ñu fiy néewal étudiant doole sous prétexte que ni bokkul maire national sous prétexte que ni d'accordul ak nguur gi wala ki jiite réew mi ci politique bu muy mën a ci réew mi. loolu duñ ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg sëgam nag ñun ñooy xeexal ay sénégalais yoo xamante ne peut-être mun nañu wax ni amuñu sax lien direct ci injustice yu ñu leen teg sàkkaatuma ak injustice boo xamante dañu ko teg ñun directement dinañ utiliser toutes les voies et recours d'ailleurs dinañ introduire benn déféré au niveau de de la cour suprême chambre administrative cour suprême pour réclamer l'annulation de cette décision purement et simplement politique mais aussi également dinañ utiliser yeneen voies yi nga xamante ne jàpp nañ ni bés bu ñu ko utiliser wee dinañ am ndam ci lu ñuy xeex parce que lii du dëgg du yoon tegul fenn et que nous interpellons encore une fois pour terminer le doyen de notre faculté ñun waa coalition COCC du ñu nangu ñu fiy def session unique alors que étudiants yi nekkul woon ñoo doon grève professeurs yi ñoo doon grève donc nous ne sommes responsables de rien donc section unique du fi amee ñuy jël ñi nekk position de cartouche yëpp di leen dàq comme xaj sous prétexte que ni université dafa fees il va falloir que ñu ñu dàq ñu bëri pour que année prochaine ñu ñu mën a orienter étudiants yi du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëg c'était le message qu'on voulait passer wasalaam jërë ngeen jël